asalaamaaleykum sëñ bi tur bi salaam Assane Ndiaye la. Assane ñu fekk leen waaye euh, ngeen di yëngatu ci wàllum euh, bijouterie. est-ce que mën euh, dëgg la monsieur le journaliste comme ni nga ko gisee nii rek tur bi Assane Ndiaye la le général du GIE ànd soxla suñu métier donc ren nekk suñu première édition la FIDAK. Euh, mu nekk trentième édition foire mu ñu mooy suñu premier participation donc mu nekk lu am solo euh, parce que danañu mën a permettre ñun ñu promouvoir suñuy bijoux locaux yi nga xam ne ñu ngi koy tëgg fi Sénégal xamal askanu Sénégal ne aussi am na doomi ndaw réew yu mën seen liggéey euh, yu nga xam ne tey wax yàlla war nañ mën a liggéey liggéey bu mucc ayib sénégalais di ko consommer à cent pour cent donc loolu mooy tey waral fii suñu teewaay ñu ànd ci ak euh, 3FPT comme ni ñu ko gisee d'ailleurs ñoom ñoo ñu jox stand bi pour jàppale ñu aussi ginnaaw bi ñu defee benn formation en deux mille vingt et un période Covid bi euh, ñu nekkoon au nombre de vingt bi bijoutiers ñu defoon formation am suñuy attestation ñu àndoon ceeg euh, 3FPT ak chambre des métiers ak Indagraf donc loolu nag bi formation bi jeexee tout récemment le huit passé madame la directrice Sophia Diallo ñëw déplacé wu. seet si ñu ñun en tant que des bijoutiers de la banlieue et partout dans Dakar ñëwoon xool si ñu ginnaaw bi ñu tàggatee ba pare jox ñu suñu attestation ndax vraiment li ñu tàggatoon danañ ko gis ñun donc bi mu ñëwee seet si ñu ñu ñëw toog def ay échange waxtaan li ñu waxtaanee euh, le treize passé ñoom ñoo ñu contacté waat nañu est-ce que foire bi intéressé na leen ne ko bien sûr donc ci la ñu joxe stand bi essence bu yaatu bi pour ñu mën Euh, promouvoir la bijouterie sénégalaise parce que dafa jot aussi askanu Sénégal mën di consommer li nga xam ne ñu ngi koy tëgg fii Sénégal donc non non seulement koom-koomu askan wi dina dellusiwaat ci askan wi ndawi réew aussi ñi nga xam ne tey demoon nañ ba am parce que bijouterie euh, am tolloon na benn période vraiment mi ngi doon souffrir da nga daan gis atelier yu euh, autant suñu maam yi ak suñu nijaay yi dañ daan yor atelier presque dix personnes wala quinze personnes nekk ci benn atelier donc léegi nag ñu dem ba atelier mbaar bi sax benn nit nga fay gis mu koy kocc koccal benn nit boobu rek dana dem ba toll benn période pour mu pour mu am lu mu produire sax problème lay nekk donc ñu ne pourquoi pas ñu relancer waat la bijouterie sénégalaise ci beneen forme nag euh, du ñuy jóge ci euh, ne nañ yem ci mbaar bi rek bu ñu amee luñ koccaat luñ dépensé donc war nañ passer niveau boobu donc war nañu mën a promouvoir suñu bopp au la de fi ñu nekk actuellement donc loolu moo waral ñu ne noonu en tant que des jeunes de la banlieue nañu mbooloo doon benn créer benn GIE ñu tuddee ko GIE ànd suqali suñu métier donc suqali suñu métier c'est pour euh, maanaam yeesalaat euh, secteur bi moderniser ko gën ko assainir aussi parce que assainissement pourquoi parce que il faut ñu assainir secteur bi boo xoolee Sénégal yi la plupart dañ naan tëggu Sénégal du tëgg bu baax parce que duñ tëgg xaalis bu baax te loolu artisans yi ñoo koy tëgg bijoutiers ñoo koy tëgg ñu ne nag nañ sensibiliser les bijoutiers ñuy tëgg tëgg bu mucc ayib di tëgg gal bu baax ak or bu baax gal bi nag ñu ngi koy tëgg di ko pro comme li nga gis fii ci vitrine yëpp xaalis bi mais tey li woo lu tax gisoo fi or tey parce que amuñ accès ci matière première et su dafa cher tellement que ñun bu fekkente ne da nga nekk un petite entreprise pour nga mën a jóg Euh, mën a de am accès ci matière d'œuvre di tëgg di dafay metti donc ñu ne nag euh, pourquoi pas ñu ñu lancer un appel à l'état du Sénégal ñu vraiment ñu ne ñun ay jeunes budgétaires la ca liggéey rek moo ñu tax a liggéey nag secteur artisanat surtout bokk na ci li nga xam ne war na mën a développer euh, am réew parce que lim lëmb lim làmb dafa bëri. donc bu ñu état doolelee ñu am accès ci matière première yi nga xam ne tey soxla nañ ko ndaw yi ko nekk fii ay financement parce que structure yi fi nekk yëpp pour ndaw yi la pour jeunes yi la donc il est temps ñu am ci accès war a mën a jot ci matière première yi war di mën a di di produire quantité pourquoi pas bu ñu produire suñu askan ba ñu am satisfaction ñu war a mën a génn à l'extérieur di comme ni ñu indi ay bijoux importés di ñu ko jaay di ñu ko imposer fii suñuy femmes dem ba adopté wu ci système boobu ñu nit war nañu mën a dem ba am suñuy propre produit imposé ko dans les marché internationaux donc loolu mën a nekk mais loolu nag day fekk nag di euh, naan peccum liir bu neexee day ja moo tee ca wagg ya donc ñi ngi lancé un appel à l'état du Sénégal que mu jàppale ñu reconnaître GIE bi nekk kii GIE bi nekkul association bu nga xam ne dafa ñëw rek pour nekk fii di di di di di masqué wu wala di mbuboo yeneen mais liggéey moo ñu tax a jóg ay ndaw lañ ñi ci gën a ëpp de trente cinq à quarante ans moo fi nekk donc c'est la jeunesse sénégalaise donc li ñu bëgg mooy ku ñu jàppale ci ay financement ci ay accompagnement ci ay orientation donc 3FPT nag vraiment tey jox nañu faveur bi ñu mën a nekk fii exprimer wu xam xamal askanu Sénégal li ñu tax a parce que li c'est très important ñëw wane suñu bopp xam ne kat bi am na ndawi réew yoo xam ne tey bu ñu leen jàppalee jox leen li nga xam ne moom lañ yelloo ak lii seen wàll ci réew mi war nañu mën a dem fu sore sore kon vraiment loolu mooy euh, idée idéologie bi loolu moo tax a jóg euh, GIE ànd soxali suñu mbéy. tey fi leen euh, leen comme ni ma la ko waxee sànq rek mooy GIE la. on est amul benn benn don don bien vrai que am nañ siège social mu nekk Pikine Icotaf. le président c'est Baye Khali Thiam moom moo nekk nii man maay le secrétaire général mais am nañ ay représentant partout à Dakar mais nag ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a yem ci Dakar yeneen régions yi aussi ñu yaatal ko ba ñëpp gis ci seen bopp am nañ ay représentants à Rufisque Grand Dakar Kër Massar Guédiawaye Pikine à Tilène man maa ngi Tilène par exemple donc nous som partout dans Dakar donc loolu mooy waral ne ñun du GIE bu ndaw parce que bi ñu defee formation bi ci différents secteurs lañ jógee ñu bëri fa lañ xamante ne ñu créé un GIE pour mën a promouvoir la bijouterie sénégalaise. waaw maa ngi tudd Baye Xaali Thiam président GIE ànd soqali suñu métier bon li waral suñu teewaay fii nag euh, c'était en deux mille vingt et un benn formation boo xamante ne si euh, ENDA Tiers ak chambre euh, de métier ànd ak 3FPT ñooñu ko defaloon ñu nekk vingt bijoutiers au niveau de département de Dakar yàlla dogal na ñu defoon formation bi pendant un mois quatre jours. par la suite na ci lañu waa ENDA proposé ku ñu def benn groupement ñu fal ñu président bi dépp loolu ñëpp activités yi activité yi ba tey yàlla suñu borom dogal 3FPT euh, directrice daal di ñëw seet si ñu ñu ñëwee suñu suñuy place ñu def benn cérémonie après nag ci lañu joxe stand bi nii pour ñu exposé fi li nga xamante ne si moom lañ liggéey ci formation bi ak tamit promouvoir la consommation locale li nga xam moo ñuy tëgg suñu loxo pour waa réew mën koo xam man si di jariñu daal loolu moo waral tey jii njooñ instant bii nii ñu logé fi wane fi suñu œuvre quoi. seen produit bi ñu ko découvrir quoi lan mooy nekk seen impression bi. waaw clients yi bu ñu ñëwee am nañ satisfaction parce que lépp solo mooy ñu bëri xamuñu ne Sénégal dañuy liggéey ay bus yoo xamante ne si bon bus yi ñuy liggéey fii Sénégal am na ñoom ñoo dàq sax importation bi dèjà ñun bague solitaire yi ñu forme woon quatre griffes ak huit griffes yi à l'époque ñun importé nga si lañ gis. ma suñu professeur Ousseynou Mbow maa ngi ko en passage bi mu ci formé euh, bi ñu indee ki ñaar dañoo nga ne ko bague bi ne ko bague bi ñoo ko liggéey sax moom da koy jaaxal parce que jàppoon na ni kat ñun tëgg amuñu xarante boobu te tëgg yi li ngi si vitrine bi yëpp ba ci kurusu xaalis yi ak yi ngi fi gis yëpp tëgg yi ñoo ko liggéey seen loxo kon tey li ñu war mooy bu ñu état bi jàppalee gën ñoo renforcer ay formation professionnelle ñu mën a xam renforcement de capacité rek suñu liggéey dina tax ñu mën a permettre ñu mën a tëgg li ñu mën a tëgg lépp di ko mën ci waa réew mi pour loolu mën a soqali ndax loolu moo tax a jug GIE ànd soqali suñu métier pour réew mën a soqaliku jaar ci artisanat ñuy tëgg ci atelier yi di liggéey li ñuy liggéey ñu koy mën di gis clients yi di ko mën di jënd mu nekk cent pour cent local cent pour cent argent pur loolu la ñu wane fii tey ci foire bi ki clients yi ñu ngi ñëw macha allah ñu ngi ñaan tamit ñu gën a ñëw gën a découvrir li nga xamante ne si moom la bijouterie sénégalais wane quoi. parce que bijouterie dafa nekkoon phase boo xamante ne ay jamono doxoon na lool. ba sunu parents yi képp ku am sa doom sax bu demee école bu wàccee sax day ñëw yendu si mais ñu dem ba benn moment boo xamante ni waxuma la dem école mais pour nga gis ku la jox doomam pour nga jàngal ko métier sax dafa xawoon a raaf mais ñi ngi ci sant bu baax par rapport ak bi nga xamante ni formation yi mi ngi am parce que tey boo xoolee ñi ñu formé nii muy vingt et quelques yooyu bi ñu ñëwee ku ci nekk lu mu gàtt gàtt jéem nga récupéré waat ñaari xale wala ñetti xale dugal leen seen biir place di leen former kon loolu nekk na loo xamante ni bijouterie moo gagné Sénégal moo gagné di wax ni yooyu ñi ngi ñaan euh, état bi ñuy gën di yokk loolu formation yi parce que am na njariñ di ñaanal GIE bi na nga xamante ni di ñu paree ci formation bi euh, dañoo séparé wuñu rek parce que formation yi bari daana am mm-hmm. euh, daana ñëw nga defal la sa formation après nga dem mais bii yàlla daf leen dimbali defal leen dimbal goo xamante ne daf leen a dajale ni leen bu ngeen tasaaroo mu xool ay nit ñoo xam ne ay ay gox yu fasantikoo la mu boole leen dajalewaat leen suude leen ba nga xamante ni booy xool ñi ngi dugg ci seen troisième année di def ay effort yoo xamante ni wax dëgg yàlla jafe na nga gis nit ñoo xamante ni bokkuñu fu ñuy yeewoo bokkuñu fu ñu dëkk mën a mànkoo mën a ànd di doxal di def ay résultats yooyu yooyu yombul kon ñu ngi leen ciy ñaanal te ne yàlla buñ ci gis seen bopp yàlla nañ ci gis loo xamante ni njariñ bijouterie kese lay doon mm-hmm. waaw ñun euh, jafe-jafe bi ñu am ci bijouterie yi bari na lool parce que euh, ba fii ñu taxaw di wax nii rek ñi ngi fekk suñu ñaari membre yoo xamante ni ñi ngi leen di téye fii ci kees ci ay yoo xamante ni yii mën nañu wax recel la yii mën nañu wax ni loo xamante ni euh, ay ay ay ay yu kenn xamul la de yooyu dafa war a jeex fii ci Sénégal ci comptoir bi nga xamante ni président mi nii Euh, ñu ngi booleeg ay nit ñoo xamante ni war nañ ko fay teg ñu ñëw ñu lancé appel kan ni nag ñi nga xamante ni ñoom lañ koy jox président bi muy wax daf ni or bi nañ ko fi bàyyi pour les artisans bijoutiers kon ñooñu ñooñu moo tax ñu bàyyi fi or bi euh, ñu ngi leen di ñaan nag ñu impliqué ci bijoutiers yi nga xamante ni euh, am nañu xam-xamu am nañu man-manu naka la ñuy def ay teg ay garde-fou yoo xamante ni Eh, ni ko président bëggee dinañ ko def ba ku ci sa yoon nekkul doo ko mën a jël doo ci mën a def dara la leneen loo xamante ni lu dul visiteurs rek moo ciy gagné te jàpp nañ ni loolu bu fekkee ni am na dinañu gënal parce que tey bu ñu la woon deux grammes or rek fi mu ne nii mënoo koo jënd parce que amul foo mën a dem jënd ko ñëw teg. de day menuisier bi bu soxlaa bant day dem jëndi ñëw uude bi day dem jëndi der ñëw mais ñun amuñu fu fuñ ko mën a jëndee de loolu mi ngi bëgg a yàgg bu baax nag euh, am na ñaari association yu mag yoo xamante ni ñu ngi fi di ci xeex di ci waxtaan di ci def ay affaire mais buñ ci gënee renforcer daal mu am solo parce que association association tëgg table nga xamante ni président Mamadou Kassé moo ko moo mooy président bi ak AMBS bi nga xamante ni Ibrahima Niang ñoo ko yor Euh, ñu ngi ciy def ay waxtaan yoo xamante ni jàpp naa ne bu leen ci état bi impliqué ñoom ci biir euh, li président bi bëgg dinañ ci gis lu kawe suñu njort waaw